moo bi nag nag il faut ñu fal imaam ñu ne moom moom laa fal imaam mu ne am moom mu ne nag da ngeen maa fay imaam rek mbaa ma dindi sama kii bi lépp ma dindi ma sànni ñu ne ah waaw d'accord léegi na jël moom mooy léegi jël imaam def ko El Hadj Amadou moom ko mooy imaam ñu toxtal ci moom ñu ne moom moom legi mu mo motor mo imam imam ci imam bi bi di jiite di jiite di jiite ba ben jour yalla def imam bi voyage manam ñom ñep ñoo ci jumaa ji ba waxtu jar rek ñu gessu ñu ana imam imam ñu imam imaam mu nekku rek gars laal muuma muuma eh. Eh. Eh. mu ne moom ma jékki-jékki rek taxaw xool sàpp yëpp gaa ci gannaaw moom mu ne la a ah, càppee ci càppee maanaam defar leen sàppee a ah, càppee ci càppee leen sàppee gaa yi defar sàppee ba pare rek moom mu taxaw ci kanam gaa yi li xamal moom muôn ư chấm pin trong cân chấm cho cho chấm chấm pin rồi chấm pin cho cân cho chấm pin cho cho cho pin cho cho cho ư mu bugu wasami allah limu hamin mun ajam jam mu mun am jam mu mun ư mu mun ư léegi nag mu ma indi na ñeenti rakk yëpp mu ma toog mu ma war a seen mën gaa yi toog di déglu moom mu ne bindum bañ jam bindum bindum bañ jam bindum bañ jam bindum bañ jam bindum tuutum bindum bañ jam mu ngi nekk tahiyaatu lillaay bi nag ne bindum bañ jam mu mën na gaa yi ñu ngi koy déglu asalaamaaleykum mu ma jékki-jékki naa brr brr